Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous voulez gan nga ci kër gi le bouton abonnement et te bul fàtte la la cloche de notification bi ne ngir bañ tardé vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. lépp Pape Birahim la lépp rek li xew rek Pape Birahim la ndax Pape Birahim bi ko Mama Bandé laaje dana ko xawma fan njaay endo te moo ko gën a xam fen bu bu jaxasoo Pape Birahim moom moo ko jaxase te gàtte rek moo nara am ndax lii nii naaj bu ko yëgee gàtte la si nara am moom daal dafa nara metti rek uma li nga wax dëgg la nii rek la mën a demee te joo tam nii rek la mën a def ndax joo dafa sori woon si yaayam bu demee tey ji nu ne naajuub moo def li yaayam nii rek la mën a doxalee ndax dala leen ne naajuub bu xamoon ne yaayi joor mi seexam la du ko mas a def moo tax film bi dafa jaxasoo dina mere maajoor dina mere papaam ndax maajoor am na lum xam papaam tamit am na lum xam film bi dafa jaxasoo loolu la rek. après dina ko maajow ko expliquer dina bàyyi lépp parce que joor man mu mere maajow papa Birame moom dina ko bax parce que da ko nëbb ñaar yoon xam dëgg nëbb yaayam joor def na fi def na fi lu ne ndax yaayam maman ba ba gisu woo maman banne xalaatal na du weer heure bii waaye li mu gis maman banne moo tax xel mi dellu si waat kon may sa war na sant Maysa lu bari parce que lépp Maysa la te naa jóg da koo def lu métti violé na ko yóbbu na ko ci àll bi ñu violé ko dem ba koy rey ñu sauvé ko moo tax daal joor instant yi mënul instant xol bi day laaj il faut mu def nii parce que joor dafa sóob na yow laaj yow bu ñëwoon ne sa yaay armée dama ngi nii def tur beeg def yëpp joor day ziyaari ji yaayam parce que dafa jàpp ne yaayam dee na parce loolu lañ ko lañ ko wax rek la mën a jàpp loolu amul ko am ak ku amul xel yaakaar naa yéen ñiy wax yéen a amul xel yow tey ñu ne la sa yaay ba wan la almeer tur ba lépp a ngi si ah, nga ne ko amul xel <laughs> yéen joor ëpp xel sax yéen ñi di wax xoolaat la li ngeen wax waaye yow xam nga lu ma lay am na xel de. liñ ko wax rek la mën a jàpp sa yaay dee na encore mu def ay recherche ba xam ne naaju moo noonu rey yaayam sax lañ ko wax que dafa jàpp ne yaayam dee na rey loolu tax na mu mënul bëgg naaju buñ nga bu xamee ne sax naaju seexu yaayam en bi mu en naaju ba léegi du reñ loolu lay am am na ñoo xam ne dañuy en seen tànt parce que lu bon liñ ko doon def yow di nekk sa tante bu jàpp la fitaan la ba danga koy am en seen diggante noonu la rek naan jóob ak kii joor xanaa Mariama ñam parce que moom lu ko yaan wax da koy def parce daa bëgg yaan si nga kumba ñun lañ wax xam nañ ko bu baax man néew ma ne joor dafa xam ne yaayam gaañuwul waxuma loolu ndax dem na ci armée siyaara ko ba pare kon xam nga ne joor xaw yi dafa foog ne yaayam dafa gaan léegi nag dama ne joor bu demee ba xam ne bu defee li muy réccu bu defee dara naa jóg bu demee ba xam ne yaayam ji gaañuwul ndax dina ko xamoon tôt ou dina ko xam moo tax ma wax loolu. waaw comme fi nga rek waaye tamit moom noonu la mën a réagir parce que xamagul dëkk gi naan jóob xamul joor xamul instant yi dañuy lii rek Pape Birahima war a wax dëkk gi wala papap te kenn nangu see wax dëgg ak bàjjanam waaw parce que ñoom tamit lu joor lu mu def war naa jóg def ka lépp rek si Pape Birahima ko war a jël en charge parce que lépp moo jël xam dëgg bu bari nanguwu kaa wax lii gar mi xam gar tamit Pape joor dina ko mere benn côté parce que dafa am lu mu xam. ba mu xamee dara moom la ñëw wax ko Joob parce que Joob mooy taawam bu ko defee réeroo du am waaye xam nga film bi rek dafa xaw a jaxasoo metti na tàng na if noonu lay mën a demee série bee laaj loolu neexu ma dara maa ndigg di wàcc ba ndigg wàcc joor amul fit boobu sax naan ngay fëggaat kii pour moom lu war liggéeyante naka liggéeyante aman yàgg yàgg kii wala na ma jabar jëkkëram maanaam ay ndiglu wàcc yow mi sama jëggante daal dóor kuur yow joor daa ma xale joor kër xal laa man moom nu war a liggante moom naka liggante yow sa yaay sa yaay dee na mënoo fex ba gis koor ba fi ñu ko mënoo fex ba gis kii ba tomb ba fi ñu ko denc moom xel xelam mi réer moom gattax la rek gattax xam nga gattax muy bant yow noo xam ne amul njëriñ moom la rek boobu keta moo si nekk. yow kon yow laay <laughs> fi seetaana du daa yor pompe dafa leen nag dina pompe kii si kaso ba la jëm te si pompe kenn na jóg day bandi bandilu rek yow kii xadi joo noonu la mën def yow imagine yow xadi ñu ne sa yaay kii mu xam ne ne naajoo moo ko rey parce que naajoo da doon rey yaay tey ji heure bi bu ko pam ah, kii day dee te ba léegi noon la rek naajoo xamul joor xamul parce que joor dafa jàpp na yaayam dee na. waaw kay mbéy ziar ci wax loolu yow Seyda joor noonu rek la mënoon def bu def toon même yaam bu xasee génn kër gi rek dootuñ gisati naan ndax naan waxoon yaa bu ñuy xas tese joor na moo am axe boobu taxaw ci buntu kër gi yor kuuram indoo mu fëgg kom ndigli wàcc ok bëgg naa yi xale daal pare. kenn doxewu xel aka mën a xel nag aka eh, toog leen foofu xam nga dafa fekk ne bandi bandi xel mee sori rek parce que bandi li ah, koo xam ne nekkoo bandi nekkoo dara. bandi li muy xalaat yow doo ko xalaat yow yaa ngi xalaat laneen lu baax moom mu ngi xalaat laneen lu bon parce que woyu la bandi la loolu la an lay nuyu nii ma bari loolee du waxi far de billaay li ma wax du waxi far jóor doxewul xel de jóor xel doxewu ko lu neena fi woon bu naat jóob xëyee génn mu gont dugg ko sax lu léegi xam nga ne naat jóob ak ñoom mère Mariama ay seex léegi bu defee dara naar jóg wala mu def ko daal lu metti léegi su ko defee xam nga dina mujj ba pare yaayam deewul mais Mariam xam nga deewul. avec joor rek garmi papam de ay joor laa lay wax de doomu garmi ok kooku moo jël garmi ba mu jël kii xam nga boo xam ne garmi baayam ok. gan du ragal de kewe mom daa sey daane rek sa xol je mo ta ngay raya ta yow sa pistale eh. ah yina me na ngeen war a def pistale sa eh. waroo rek ko rek ngeen war a dem ñaari posan xam naan war yef fi ordinaire ah naan mo posan la war naan posan ta noppal benn nah. yoon fàtte jo mom moom garmay papam yow gënantu ko xada ji ci papa ji yep a ngi si moom mais doo xewul xel jor doxewul xel tadi du ko mës mom doxee moom muy def rek lum ya mu dégg da koy bëgg rek la ci sens yi lum dégg da bëgg a do daal non daal. Siri Madior ak Jor ziar na len maa am ngeen jamm naka suba mi ngi na len bu baax baax mais naka série bi dem commenter ngeen bi pare série bi neex na de macha allah xade fan ci yaama beeg naar jop fark yenent bi yow la fek ci porte bi na la bu baax mais dem moy lol de cour lañu tel de cour jor rek. ñun de xale kuur ñoo nekk nii xale pare waaw duñ ne benn xale bàyyi nañ la yàlla ñoo ne ñu lay fay na fay ba am ca yaama waaw ee eh, rek nga daw ah <laughs> yow la laale nooy def ba doo ñoo la long ñoo la ëpp ah, ñun daal dëgg dañ lay gàtte ba muy moom te doo leen fenn sa yaay nag na ok dara xew. mënu rëcc sax avec Madior rek dina ko lijjanti ba mu ne cocc delloo ko prison Madior baayam lay jàppale te xam na ne Naar Jóob rek ah dara doy ci yeere te yow yaama lay ooy duma la ooy sa sa tur kay fas yaama ngay am noonu dimbali doole ah uff eh rek ngeen waññeeku tax mënoon leen am si tey kono ngena jeema jeengu len toon bangen makko eyi min jamni ko mbamen e jooreji liggande kala jooɗama liggande boo mbawi liggande e Ayo, eyo mini gan an probléme en fofmo yiyamini dewot to mun ko gis lewru danaka probléme Ya, na na len jappade na yalna yer pompe gaz rek mamo yer frial parce que loolu laa ñaana mu yer pompe gaz mamo yer frial pompe lay ñoom ñëpp nangu seen téléphone pare ba mu weefateel gaañ damm seen tànk yëpp xamal leen naa naa bala maa gën a xam ne rek ah naajo dina rëcc foofu ba xam ne police bu dee police yi dong moom naajo dina leen nax ba rëccaat waaye bu dee maajo njaay gaw ma bi ci foofu gaw ma ko de ah baax bu rëccee foofu dama xam ne tey laa bàyyi maajo man ca du yomb.